mi ngi noonu salaamaaleykum salaamaaleykum am internet euh, Thiès Info ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal kenn ku ci nekk ci yéen fa nga nekk ak fu mu mën na doon ci réew mi fekk nañ la fa ñu la jàpp loxo jox loxo bi daal laa nuyu waaye itam yëkkati xol bi jox a baax ñi nga xamante ni yéen ami internet Thiès Info abonné ci Thiès jàpp ci liggéey bi fu ngeen mën a ne ñu tëdd ci lal hôpital yi ñu ngi leen di ñaanal ñu jóg ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw mbokk ñu ngi leen di ñaanal ñu dellu siwaat ci li nga xamante ni moom moo di euh, seen ak njaboot ci askan bi ñi nga xam ni itam dañoo feebar euh, Euh, di ba pare di dox ak moom ñu ngi leen di ñaanal ñu wér ak jàmm salaam mbokk nga xamante ne am jafe-jafe ñëpp yàlla seen jafe-jafe yi saafaraw demee ni nga xamante noonu la war a demee may nuyu bu baax a baax ñi ma jàkkaar lool jabel ak ki nga xamante ne moom moo di jibi ak biram njaay borom gosaas voilà euh, nuyu nag ki nga xamante ne moom laa invité di ndaanaan ku li fàllu ndaanaan kenn dootu ko présenté ci askanu sunu koo xamante ni ñëpp ko ràññee muy mbër di jàmbaar ah nekk koo xamante ne vraiment ay combat boo ko seetaanee jom nga ciy gis fulla ak fayda tey moom lañ fa séenee seqal waxtaan 10 000 ñu ngi lay jaar. waaw salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum waa Thiès di nuyu waa Pikine waa Canaba di la fay nuyoo da Damel di ñaanal Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg te wér di nuyu waa àdduna yëpp di nuyu fans 10 000 di leen xamal ni leen xam nga ñu waaj incha allahu rabi di leen nuyu bu baax a baax a baax di nuyu sama xarit Pape Gora mi ma àndal ñëw fi Khalifa Tall. ay ñoom Ameth Niang say bata yaa ngi comprendre ay ñoom Naar Niang di ko nuyu bu baax Naar sama xarit di nuyu a Gueye sama doomu ndey sama xarit di ko nuyu bu baax a baax otom laa naroon a jël bi may ñëw sax mais dama ñëw taal xam naa affaire de gasoil ak boîte bu paan ak yooyu noonu moom otoom mooy loolu ak moteur yeeg yooyu noonu yëpp am problème moo tax. oto ah. bi moo tax ñëw jëluma ko ñëw mais moom otom laa naroon a jël ñëw waxante woon nañ bi su guddi sax. ba mu woo mécanicien yi mais bi ma ñëwee taal tàkkul oto bee bëri problème waaw di wax gaa yi nag damaa war a am woto. bu baax waaw lu leer. ah c'est normal de. non dama war a am woto. Wally Seck gis nga may na bàjjen woto. moom Wally bala moom mayee oto moom xam nga. daa waroon a fay boor bi ba pare. parce que bi muy dem Belgique su ma juumul sat millions la ma woo àbb moo ko ma jox ko. ak yow mi waaw laajaatu ma ko mais na am xelum delloosi ko Wally tamit loolu da ko war a def. nit ki su fekkee mais nag baaraas la ëllëg dina soxlawaat xaalis laaj ma ko du ma ko jox <laughs> non si. benn waar ëllëg dina soxla xaalis woo ma téléphone bu ma ko jël baa ma dugg ko liste noonu. nooy leblee 7 millions te mënoo am oto. waa loolu it kaa la de. Ah. mais xam nga rek ak Wally ni ma ko bëggee barki sëñ Bamba man mooy sama woykat man dama ko bëgg a ma ci moom ngor bi may àbb loolu sax xam nga fekkoon na tey jii nii xam nga. amoon na yeneen programme yu fi nekk mais moom amu ci moom ngor foo jaar ma jox ko. macha allah mais su ñëwee rek ma jëndoo te incha dama dégg nga wax léegi tudd Ceneba Ceneba dafa mel ni am na champion bu fa dëkk bu ñuy tudd guy gi. waaw moom sunu mag la sunu xarit la tey jii suñu bëggee làmb yàlla ak moom euh, di ko ñaanal tamit euh, carrière yàlla def ci gën a réussissement réussissement. réussirement total parce que nit la ko xamante ne ku baax la quoi wu na la sunu grand frère la nit ku baax la. waaw guy gi fan yi dama déggoon ay coow ci moom nu mu demee. waaw boobu sax ma ci woon a waxaat parce que dama comme yàlla dogal na ñoom ñaar ñu juboo mais du tamit du tee dinaa ci sànni tuuti grain de terre Bou Siteu kooku matul sax mbër. xëy na bi amaana yàlla moo ko dimbale ci làmb rek parce que tey ji yàlla léeg-léeg mu am ñoo xam ne da jàppale te yàlla tax mais bu matul mbër. du mbër amul lenn lu mu xamante ne tey jii mën na koo reporter géejawaay guy gi nag xolama nice quoi mais nag du tey di wax bu ni ko xamal ko ni ko guy gi suñu grand frère la donc jàmm am na mais doo continuer su jàmm continuer wul billaahi suñ déggee tey yow ak guy gi loo xamante ne tey ji tooñ nga ko di nga xam ne am na ay rakkam yoo xamante ne tey ji mën nañ ko koo fajal te du yàgg sax ci one by one minute ñu fajal ko ko amul benn problème. nan nga koy fajee. non dinañ koy faje moom xam nga nekkul loo xam xamante ni lu nuy wax la lu nuy jëf lay doon parce que benn su wokkee guy gi dinañ ko xuri ba màtt ko <laughs> non sore sans balak parce que guy gi du dara mais c'est le symbole di géejawaay guy gi dafa am lu mu def géejawaay yaa ngi man. c'est le symbole di géejawaay di géejawaay nan la joxe c'est le symbole waaw noonu la c'est le symbole di géejawaay su dee guy gi la baaw baab c'est le symbole di Sénégal de de géejawaay yaa ngi comprendre du yoon sax. mu koy dóor pomp à gaz kenn di àtte waruñu woon àtte de danoo waroon a jàpp Bou Siteu duma ko duma yu métti su fekkee benn dil amu ci su fekkee kenn yónniwul ko Bou Siteu pour mu dóor guy gi pompe à gaz isa xam li ma la wax kon dèjà guy gi nekkul loo xamante ni benn n'importe qui la waa yaa ngi comprendre suñ grand la nag fi ne yàlla sa dogaloon diggantee ak Pikine ñun Pikine lañ dëkk mais ñun Pikine rek lan ñu xamee Pikine la ñuy wax yaa ngi comprendre mais su loolu jeexee jeex na tey jii xam nga wurut a toog benn booy war a ñëw di ko dóor pompe à gaz kenn réagir wul comme si que ñun nag li tax ñu dugg ci coow li mooy guy gi suñu grand frère la yaa ngi comprendre su jugee ñun dañuy jug yaa ngi comprendre kon dèjà comme jàmm am na fa jàmm am na fa yàlla na continuer waaw yàlla na continuer quoi. ay jëw yi ñu doon wax ak jëw yi doon wax ak yooyu waaw ñoom moom yàgg nañoo xam nga ay détails quoi cent pour cent nangam ak nangam mais c'est passir mais. daal su jàmm na continuer su jàmm continuer wul nag incha allahu rabi ay bay faala ngi fi dawuñu dawuñu yoole de dawuñu yoole. làmb ji gisoon ni dafa bëri coow léegi. ay Balla Gaye Modou Lo waaw dina bëri coow nag parce que ñoom amatuñ doole. ay Balla ay Modou Lo xam nga Modou Lo tey jii nii li tax bëriwut ak Ama ñàkk doole ci la ko teg. <laughs> non si sérieux sans balak. Balla Gaye ni nga koy gisee noonu xam nga. yow roi des arènes ngay waxal ba ci. billaay ñàkk doolee tax bëriwut ak Ama ak ak ak ragal quoi tey jii su fekkoon tey jii nii am na loo xamante ni tey jii nii leer na ko ne mën na cee sukkandiku daan ci Ama du yàq combat bi. xam la non si looloo am sax kon léegi ñoom amatuñ doole joo xamante ne tey jii nii war nañ ko mën a bëri wala ay technique yoo xam ne mën nañ koo bëree bëree léegi ñoom làmmiñ lañ yor toog Balla Gaye trace Modou Lo Modou Lo trace Balla Gaye. comme Serigne Samba la gars yi déggu ma li nga wax. Balla Gaye trace Modou Lo Modou yaa ngi comprendre. combat yi taxaw suñu àggee budaa budaa xam nga budaa mooy mag ñoo kii film yooyu noonu film budaa yi jàppante di buuxante yooyu noonu ku daan baax na. mais trace mooy lan. trace mooy comme ça nga toog wax si sa morom sa morom delloo la ko loolu mooy trace wala. non yow lañ non man yow ñooy wax ñii seen yoon nekkul. waaw mais trace loolu la trace mooy loolu. mooy comme tey jii ma toog fenn xam nga sànni la trace après nga sànniwaat ma trace. muy trace waaw. <laughs> leer na naa ñi voilà mais 10 000 problème 10 euh, 000 sax euh, beneen 10 000 bi beneen 10 000 problème bi yéen ñaar seen tur nu mu nu mu dajee noonu. waaw man nag 10 euh, 000 problème man da xam ne ma damaa mën a bëre benn mbër. ndar laa jàpp dama ko yónnee ba biir weex ma jëmbat ko loxo bi damm trois fois fa la ma tuddee dix mille problème mais après dix mille. benn loxo bi benn loxo bi trois fois barke alxuraan dama ko yanu bi ma koy jëmbat mu jiital loxo bi sama poids ak poids mu wàcc te booba noonu man ay dama dama man booba boobu amoon naa yenn poids yi de boobu maa ngi peese su ma jumul ay cent franc temps de kilo cent franc maam cent ay téeméeri kilo quoi léegi ma ñëw dal ci kawam affaire yi affaire yi damm. yaa ngi comprendre. si la ma tudd 10 000 après maag 10 000 ñuy déggante mu nekk nit koo xam ne. nit ku baax 10 000 rang. waaw après ñuy déggante mu nekk nit ku baax koo xamante ne man li tax mu gën ma neex mooy maam day ñi ci koso bi lay waxal ak ñi nga xam ne dañoo am bënn ak ñi nga xamante ne tey jii ay problème mu kese la am. yaa ngi comprendre kon dèjà 10 000 tuddatul wurtu sax tudd 10 000 problème ñun ñaar dañ il faut ñu toog ñu waxtaan ñu def. dix mille solutions changé ko non si parce que tey ji imaginer booy boobu Sambaka rang-rang boobu ngay wax xam nga ne su du woon ak dix problème loolu du am dara. mais Samba jël na seen bës bi de. non jëlu ko de moo tax ma ne dix mille il faut ñu changer dix mille def ko dix mille solution yaa ngi comprendre il faut ñu def ko dix mille solution waaw non gars yi mooy loolu. zaari ñaan yi du nangu ko waa ñaanu ngeer la ñaanu ngelaw romb ci ngelaw doo taxaw freiné ñaanal ma mais nga romb di dem ak jakarta bi du nangu. waaw waaw waaw léegi sàmmkat loo koy wax. waaw na réglé rek te xam ne fi ne bës bi na ci jàpp waaw na ci gaaw parce que après fan yi damay xew de. damay xewaat sax nag non day day jeex léegi bak alxuraan day jeex léegi. donc daf koy bàyyi wala day continuer koy wax. waaw naa ko ci bàyyi mu ñam tuuti rek wala ma arrêté ko. ah non yow laay parce que 10 000 problème sa gaañ la waxal ak bu mu yàgg nag dégg nga fii ak un un rek. nanga nga bàyyi rang bi parce que après leneen day xew quoi lu gën am doole rang. mais mais xalaatoon ni ñëw rek di wax rang rang rang rang rek mu neex sénégalais loolu loolu est que yombul. waaw dañuy xool fa mu jugee nag tey jii 10 000 def rang mu nekk loo xamante ni tey jii nii du moom dong pourtant du sàmba de pourtant dañ ciy woy ay rang gars yi dañuy woy rang xamul tax parce que tey jii nii imagine mu ñëwoon tey fekk fii taa mu ni rang ba gars yi ni lan mooy rang mu toog wax ni kat taa bi nangam ak nangam mu ni rang. police nangam ak sangam expliqué ay détails fi gars yi ni tëj police di ci wax lu nice yaa ngi comprendre kon rang dañuy xool fa mu cooxe soxe ko ak base ba. Hmm. yaa ngi comprendre Samba su si amee un million war naa ñu yëkkati neuf cent mille millie jox euh, dix mille problème dix mille problème xool lim ci jël jox ko la ca des. parce que moo ko dimbali. mais mais pikin Pikine ndax ñu ngi leen di jàppale autorité yi. waaw de toute façon di bëggee monsieur le maire Amadou Diarra. ok kooku nga lay jàpp. waaw mi ngi ciy jàpp bu baax parce que sama combat bi passé deux cent di bëggee waaw mi ngi ciy jàpp bu baax di bëggee tamit sama xarit euh, Fallou Fallou muy nekk tamit politicien boo xamante ne moment bi nu toll ñu ngi jëflante lu bëree bëri muy nit koo xamante nit ku baax la yaa ngi comprendre nit la koo xamante ne tey jii nii. même secteur bi mu dëkk booy booy ndaw yi nga xamante ne amuñu liggéey sax comme ci dina jéem a def le tout yaa ngi comprendre ba dimbali la pour nga liggéey yaa ngi comprendre sama koñ man léeg-léeg maire yi nga xamante ne tey jii ñi ngi def ay nattak yooyu noonu dama koy woo ni ko ah man de su ma sañoon nangam ak nangam barke alxuraan mu yëkkati xaalisam jox leen billaahi barki démb deux cent deux cent mille laa la wax de la yëkkati jox ma ma ànd ak moom ba fi ci regroupement bi mu jox maire ni leen liggéey leen ci lebaluma leen ko mayuma leen ko yéene ko moom seen alal la parce que seen doom nangam nangam yaa ngi comprendre di ko ñaanal tamit yàlla may ko jaamu ju bëree bëree bëree bëri di bëggee tamit waa place ba ñoom ndayloo ak ñu topp ci ndayloo yëpp yaa ngi comprendre di bëggee moor safóoram yaa ngi comprendre ak fàllu trondoom tamit di ko bëggawaat bu wér a wér waaw. mais mille problème fan la toll ci entraînement yi ci combat yi ndax am na combat wala amul combat entraînement mi nan lay waajalee fi mu toll nii tembe waaw di pare tamit di xam nga di bëggawaat bu baax mais man sama entraînement xam nga jamono ya passé ay 200 centimètres laa doon entraîné léegi dama ko yokk ay 390 centimètres barke alxuraanu karim dama koy yokk. nga ne ay lan. 390 centimètres. moom ngay moom ngay def barke alxuraan ci laay teg di entraîné lu métti. moom ngay daw. ba dama koy damay dugg temps jàpp këranoo léeg-léeg ma jógee Canaba ah daw ba côté Kër Mor. day sori sax day dépassé. nga ne loolu ci nu mu toll. ay ay 390 centimètres. Bamba xool dama ci def lu teg de wallaahi di entraîné bu baax a baax a baax a baax. Mm. au passage di wax mbëri Cees xaaj bi yëpp nag ay tàppet lan. non duggaguñ duggaguñ foofu bàyyi bàyyi bàyyil gu lool. dugg fa nag de nañ wax ci yow sa côté lekk sa côté lekk ndax mbër day lekk yow sa côté lekk ndax. waaw man de wax moom su ma amul appétit moom moom damay coob moom. en français français dina doy waar de. xanaa moo ne làkk français te mënoo ko ak dër yam soo amul domino rek doo ci mën a def lu bari barke alxuraanu karim soo rek ah? xanaa lekk de moom ci français rapa la tudd moom rapa loolu moom rapa la man samay rapa moom xam nga français dina doy waar ah xam nga rek ci vie y pas de solution mais euh, loolu dina yéeme de de repas de moi je mange bien isaam li ma la wax mais pas lu fanaan nag lu fanaan lekk gu fanaan moom lekk gu fanaan ci français nag looloo may të lekk gu fanaan ci français wala gu sedd looloo may të mais il faut mase de toi beaucoup parce que euh, euh, non man ma woo dëgg fa yàlla moom aw aw ma aw ma palaa man aw ma palaa man naa lekk ba suur xanaa xamoo ne ripaas bu ñu xooj def ci suukar tax man dama koy lekk man naa lekk ba suur aw ma aw ma aw ma palaa ba pare tamit yaa ngi comprendre képp ku may jox lekk soo silwisewul ak koo munti mel du ma ko lekk man dama dama bëgg nga nga sangu ba set jox ma lekk gu set ma lekk ko lekk gu lekk baa doola parce que man damaa mën a lekk barka quoi moi mange bien de tout koy billaahi voilà léegi ñu bàyyi la nga sant gërëm ñi nga xamante ne ñoom nga bëgg a sant gërëm mais nag en français la ko yi soxlaa quoi. instant moom ma wax ci mbëri Cees yi tàppet yi nga xamante ne. mais mais yow mbëri Cees yi. waaw ay tàppet lañ. yow kan ak kan nga fi bëgg. maam bëgguma leen sax ndax dépassé naa leen waaye dafa fekk ñoom dañoo nekk si sama yoon moo war a ñëw pour baatare leen barke alxuraan maa leen man maa leen doole building building men men alaaji gaynde alaaji gaynde bi booy jaxaaw booy jaxaaw mi daan bërki dem Ousmane Gane alxuraanu karim ba ci champion Thiès bi Modou Anta un Modou Anta bu mag. barke alxuraanu. laay goote non non laay goote dépassé naa ko. laay goote waaw si barke alxuraan boo boo yooyu noonu ay ñoom laay goote su ma bëree woon ak ñoom dama dama leen di yàqal ñoom dootuñu bëreeti parce que su ma leen daanee maam su ma leen daanee dañuy bàyyi au euh, retraite leen jëm. billaahi barke alxuraan ñu kooku gën a yomba daan si Thiès. laay goote barke alxuraan. moo gën a yomba daan si Thiès. maa benn mbër daal laa fi gis koo xamante ne tey jii nii moom sama xam-xamu bopp sama xalaatu bopp moo fi mën a dugal roi des arènes Thiès barke alxuraan tal wallaay dama bëgg nag nga bàyyi ko xel nga topp ko pambay bu ersan parce que am na yoo xamante ni mbër su koy def da ngay xam ni kii day avancé ak lu munti doon pambay newetaan day jot sax mu woo ma téléphone ni ma waa sama équipe bi nan lañ ko war a sampe nan lañ ci war a def ba xam nga léeg-léeg mu gis benn affaire boo xam ne social dama lay wax lu leer de moo ci toog maman bii Thiès Pambay su même su yorul day jéem ma def taaba taaba am ñum gis xaw jàppale nit yaa ngi comprendre mais ma wax la ñuy ma lay limal Alaaji Gaynde building non pas building mooy mbër mi ma dëkkoon léegi Modou Anta Boy Jaxaaw yaa ngi comprendre ñooñu ma si jox may xam naa sax duñ ma jël ndax tax xam na ni man du ma nit ci bëre mais barke alxuraan kun ma si jox dinaa la def loo xamante ni xam nga Abdoulaye bu njar moo dàq dóor Thiès bu nu ko joxee sama combat bi mu ñëwee daa lànk ni renouvelé wul licence am damay bañ sax ñooñu noonu mais building moom ak boo yooyu noonu kun ma si jox barke alxuraan dinaa ko def jëf joo xamante ni mais mbëri Thiès sax gëm naa ma jël. parce que yow loolu nga gis. waaw ñoom dañuy tànn. duñ ma jël barke ah kon donc mbëri Cees yi ñoo ko déggandoo Laay Goote ñoom Alaaji Gaynde Booy Jaxaaw ñoom ñëpp cité na leen donc ak Mourou Anta donc kon euh, mu ngi nii wax na yëkkati na ay kàddoom xamal na ni yéen ñemewoo leen ko kon donc ñu ngi xaar ci yéen itam seen réaction ñu xool naka lay demee su fekkente ni pare ngeen rek combat daal di taxaw léegi dañ lay bàyyi nga sant gërëm nit ñi en français li ci des yëpp émission bi en français lañ koy def waaw je je je remercie Ndiogu Euh, mooy borom bu. non non amul mooy mooy mooy olof la boo boo ci dugalee baatu olof ñu tëj ñu ñibbi. non lancé bi may lancé ma bëgg mu leer gis nga Thiès kii bii nu mu tudd sax Baye Ndiogu mooy borom mbuur man maa tax télé bi mu abonné ci rien que rek mooy Thiès info barke sëñ Bamba da cee abonné ba waxuma la sama émission man de mais beneen émission boo leen mënut def day dugg day commentaire di ko wax ne nag lien bii di ñëw dama bëgg nga lancé ko mbuur xaaj bi yëpp ñu xam ko képp ku bëgg télé bi nag. xam nga dinañ def numéro beeg affaire yooyu noonu ak lépp loo munti bëgg muy publicité ak lépp lu munti doon parce que télé la bi nga xamante ni maa waxuma la télé bi rek mais Fall Damel rek bayre la su waxtaanee yow li nga bëgg a jaay wala li nga bëgg a def produit ak lu munti doon yaa ngi comprendre force da nga ciy jot muy nit koo xamante ni ko yàlla laa bëree la waaw di ko ñaanal yàlla defal ko mu jëm sa kanaw di wax Thiès info ca kaw ca kanam man maa gisagul télé bu leen gën a aay man man gisaguma ko au français passage di di remercier beaucoup waa remercier Thiénaba Gare Thiénaba Seck yaa ngi toog Touba Gueye Kër Magueye Kër Madalo di parce que beaucoup sonn ci man tout yaa ngi comprendre. yaa ngi comprendre la sa waay. yaa ngi yaa ngi ñor. non comprendre français la. yaa ngi comprendre. non loolu dama koo tàmm laago la. yaa ngi comprendre. di bëggee ñëpp di bëggee ñëpp di leen wax ne xam nga. nan ma jàppale ñaanal ma te yàlla tax. parce que déggoo dara ci français bi. français man nag yow du ma la ko nëbb de sëy huit ans laa fa def barke alxuraan CP quatre ans laa fa def xam nga tax ma baay sam papa day ñëw di laaj di laaj di laaj di laaj di laaj ma dem mi ma jàngal ni ko dix mille mu toll baa mi ngi góorgóorlu mu ne ko bonul baaxul man génne laa gënoon a man suñu classe ak dessin génne dessin fi ne su ma la dessin ni nga toogee nii su ma la dessiné woon nga bàyyi àdduna. barki yàlla di bëggee Ibou Niass moo ma jox dàll yi dàll yi. waaw dàll yi naa dàll yi Ibou Niass moo ma nee na ma su ma demee émission ba ñëw naa ko delloo mais góob mu jotaat ci ndax dàll yi dafa mëree ko <laughs> waaw. di bëggee Pape Góor mii sama xarit la muy téer bu mën a ñëw canaba la. mais léegi ni ngay entraîné déroulement entraînement bi. boo jógee sa kër ba di ngay demee saal euh, saal wala di din ya parce que maa ngi gis sa sa TikTok bi. yooyu yëpp la askan bëgg nga expliquer leen ko en français mu gaaw nag. waaw de toute façon tey jii fi ne su doon génne suñu kër di dem entraînement. wala ñu bàyyi ko. mais loolu dina yéeme li ma la wax nii doyu la CP CI huit ans laa ko def CP quatre ans. Ah, kii la ko jëlee. yaa ngi dégg man su ma commencé ñëw jugee suñu kër sol équipement su ma lambee samay poste yëruma dara bitigu mbay jenn laay jaar ci am météo wala ma xool faneen fu may jaar. maam sama xarit bu ma dajale nga yore wecce da nga koy ñàkk ndax damay paas damay dem entraînement barke alxuraan. ku ma munti dajeel ku ma àbb montre doo ci jotaat moo tax léegi mënatuma àbb kenn lu ma al dàll yii ma lay wax nii borom du ci jot fi ne nii yaa ngi comprendre su ma yéegee jot léeg-léeg su sa fóot ba au lieu que ma wàccee da nga jox paas yaa ngi comprendre ak yeneen ak yeneen di ñaanal sama gars yëpp léegi lépp nag xam nga dañuy nekk sama am di jàmm nekk sama ay xarit di ñaanal waa Petit Kamba tamit parce que ñun dañoo war a fubal dimanche sama équipe Petit Kamba dimanche la ñu war a fubal yaa ngi comprendre di leen ñaanal yàlla may leen jàmm. kontaan nañ ci waaw di ñaanal waa Thiès info yëpp yàlla may leen jàmm si bu wér a wér yàlla yàggal fi Sénégal yàlla fi Sénégal yàgg te wér am jàmm ci barke yonent bi ak leeram jaajëf ayca ñu béeg ci moom kontaan ci moom bu baax a baax dellu jox ko wàcc waayam euh, dix mille problème euh, lay wuyoo di mbër moo xamante ni kaam mbër kaamil la am na nag ñoo xamante ni junj na leen euh, tudd seen ay tur wax ni pare na ngir bëre ak ñoom ñu nekk biir cees kon donc bu ñu seetaanee émission bi rek ñu daal di yëglu nuppi ngir daje ak ki nga xamante ni moom moo di dix mille ngi leen di xaar ayca may jaajëfal képp koo xamante ne yaa ngi ñuy teewlu ci Thiès info foo mën a réew mi ak bitim réew waa café gi maa ngi leen di bigi bu baax a di bëggee itam ñi nga xam ne ñoom laa jàkkaar loolu Jabel euh, ki nga xam ne moom moo di Biram borom Gosaas <laughs> maa ngi koy nuyu baax baax di nuyu waa Gosaas waa Njaayeen gi yëpp ah. Biram Njaay di nuyu itam borom Kaffrine jibi euh, di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi may bàyyi xel seen mbokk seen xarit Fall Damel euh, sët la ci buur seen bàyyi Serigne Saliou jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci askanu sunu gaal def ko ci képp ku may teewlu def ko ci 10 000 jox ma loxo bi seen mbokk seen xarit Fall Damel jaageen jëf